Maître Abdoulaye Tine ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. waaw yow nga jiite Union sociale libérale USL euh, di spécialiste également ci conseil de sécurité de l'ONU nga amoon benn xeex ànd ceeg say morom politique ngeen def ko muy euh, parrainage bi euh, ci législative yi ñu dëgmal ngeen yóbbu ko ci cour de justice tey mu jox leen dëgg. waaye taw xul état wu Sénégal dal di nag euh, ànd ci dogal gi euh, ban commentaire nga ciy def. waaw euh, commentaire bu ma ciy teg moom mooy du moment où dogal boobu daanu na mën nañ jàpp ne dafa nekk dogal bi nga xam ne wóy na mënatuñ ci dellu ginnaaw. Mhm. Sénégal mën na laam-laam yi wax lu ko deex mais nekkul ne day wax wala day coow ko loolu day soppi dara ci gëdd ak maqaama bi nga xam ne décision bi am na ko mhm. donc tey ñu ngi continuer di jàpp ni Sénégal amul beneen possibilité lu dul jëfe dogal boobu et que loolu saa yu ñu ñu ngi ciy ay jéego sur le plan judiciaire et sur le plan politique pour que Sénégal mën a am bañ a am plutôt benn pexe wala prof ndoll bi nga xam ne mën na ko teg ba rocceeku ci loolu nga xam ne moom la yoon teg ci kaw. tey ndax am na lu ko ci mën a fekk. waaw lu ko ci mën a fekk bëri na parce que boo xoolee sur le plan purement wu droit wu CEDEAO euh, tey euh, Macky Sall 2019 cour de justice de la CEDEAO moo ko wax lu mu def coup d'état constitutionnel la. Mhm. donc tey ci protocole boobu nga xam ne moom la jalgati. ci la sukkandiku pour jël ay daal teg ko ci putschistes yi nga xam ne ñoo nekk Mali. Mm-hmm. ci la sukkandiku pour teg ay daan ñi nga xam ne ñoo nekk Guinée. Mm-hmm. donc moom ña muy naan daleen di sanctionné sori wu leen parce que ñooñu sax amul décision wu yoon bi nga xam ne moom moo constaté que c'est des autorités illégitimes mais moom yoon moo ne yow li nga teg lii daf dëppoowul ak yoon. Mm-hmm. léegi non seulement moom xam na ko mais surtout bu taxawee naan. du ko jëfee parce que moom ba ba sànq ci suba ñemewul euh, wax ni moom du ko jëfee. Mhm. parce que loolu xalaatu ko ay ñooñam ñooy ñu di indi ay wax yu yàqu yi nga xam ne teguñu ko fenn tey amul kenn ku bokk ci ñoom ki nga xam ne mën na génn mais lu tax Sénégal du jëfee dogal bi nga xam ne mooy dogalu CEDEAO mhm. donc loolu bu ko deful am na liñ ciy dox euh, am na ay partenaire aussi yi nga xam ne ñoom la Sénégal liggéeyal ñi nga xam ne ñoo koy accompagner. ñooñu tey décision wu cour de justice de la CEDEAO dafa nekk décision bi nga xam ne Sénégal daf ko war a wàccoo mais yeneen état yi nga xam ne wala ay union muy union européenne ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi bëgg a ak Sénégal hmm. dañu war a jëfe dogal boobu parce que c'est une décision qui s'applique à tout le monde erga omnes donc loolu moo tax jàpp ni xeex bi lañ taxaw di ko wëyal sur le plan politique et sur le plan judiciaire ndax dafa am Oh, waaw mais Macky Sall moom mën na jàpp ni mbirum parrainage bi duñ ko bàyyi jàll. Uh-huh. parce que lu muy def maanaam tegu ko fen ba sànq ci suba mënu wax ci lan la mën a sukkandiku pour ne du dëppoo ak dogalu cour de justice de la CEDEAO. Uh-huh. par contre ñun mën nañ ko fàttali suñu constitution article quatre-vingt-dix-huit moo ne Sénégal euh, convention yi nga xam ne traité yi nga xam ne dañu ko xaatim uh-huh. Euh, Sénégal bu ko xesee xaatim ba ñu publier ko ñoom seen gëdd ak seen maqaama moo ëpp arrêté wala loi sur le parrainage. Mhm. donc dañuy dal di jàpp ni rek ñoom lu ñuy génnee yooyu yëpp euh, amul solo parce que décision cour de justice bi tey moo féete ci kaw. loolu ci lañ sukkandiku saisir cour suprême bu Dakar pour que le juge administratif wañ loxowu administration ma nga xam ne ministre de l'intérieur jël na arrêté bëgg a donc ci semaine bi di ñëw euh, cours de cours bi dana ko atte mhm. te ñu ngi njot ni que dana wax li nga xam ne mu dëppoog yoon maanaam ne ministre de l' intérieur sa mbirum parrainage yeeg yooyu teg ko ci suuf. Mhm. et que foofu on sera obligé d' arrêter le processus. nga teewe woon benn ndaje bi nga xam ne table ronde la bu mission suivi électorale bu Union européenne ngeen waxtaanee fa ay élections tey lu ca ruusee. waaw lu ca ruusee euh, bëri na maanaam. Euh, déjà deux mille dix huit euh, deux mille dix neuf plutôt ba ñu jóge ci élection présidentielle bi. Mm-hmm. Euh, mission union européenne bi defoon na lu mat ñaar fukk ak juróom benni recommandation mm-hmm. ay coppite yi nga xam ne waxoon na ne dañu jàpp ni Sénégal daf ko war a indi ci mbirum élection muy doxee suñu réew mu mm-hmm. ci njëkk moo nekkoon mbirum parrainage bi jàppoon nañ ne mbirum parrainage bi nu ñu ko tëggee ak nu ko doxalee maanaam amul sécurité juridique Mhm. et que ñoom dañu ne Sénégal na teg ci suuf mbirum parrainage bi parce que France ña nga xam ne sax ñoo ñu ëpp organisation euh, président Hollande ba muy campagne dafa taxawoon ne buñ faloo de indi parrainage citoyen mhm. euh, ba mu nekkee président mu créé li ñuy wax commission suspect ancien premier ministre dirigé ko mhm. kooku ba mu saytoo xool dafa ne France tey seen niveau organisation mayeegu leen ñu teg parrainage citoyen comme ñoom ñoo ko teg ci suuf à plus forte raison Sénégal nga xam ne ñun suñu état civil sax taxu ko demee noonu. Mhm. donc moo tax ñu jàppoon ne dañ ko dégg ba ñu waxee loolu la ñu dégg Sénégal jënd pour la première fois mais dégg Sénégal di wax comme dictature yi naan que état bu souverain la xam nga état bu demee bay wax ne état bu souverain la état yëpp a souverain maanaam. loolu euh, rafetal jël euh, la wax yu yàqu mooy maanaam amul lu mu wax. Mhm. Euh, loolu jalla def ñu teg ci ñaar ñetti at. Euh, le 28 avril bii passé mmh. cour de justice de la CEDEAO bi ne su bi dëppoowul ak yoon donc foog ñu dindi ko loolu donc lu muy firnaal moom mooy mission bi lu ñu waxoon déjà en 2018 loolu euh, deux mille dix neuf mhm. loolu moom la ñu ñëwoon di saytu ndax Sénégal jëfee na ko mhm. euh, ci ñoom lu ñu jàpp am na ay points yi nga xam ne points yi nga xam ne tax koo am solo noonu Sénégal dëppoo na ko muy mhm. potu handicapé yeeg yooyu mais la nga xam ne ñoom moo leen di tax ñu mën a ñàkk pouvoir wala ñu mën ko téye loolu tey euh, dañu continuer di teg ay pexe di nas ak di nocci pour mën a téye loolu mooy mbirum parrainage bi loolu nag moo tax ñun dañuy continuer di taxaw temb di wóyal xeex boobu. Mhm. comme nu ma ko waxee sur le plan politique et sur le plan judiciaire. tey ñoo ngi waajal ay élections nga yor benn parti politique ndax euh, tey yéen a ngi waajal seen bopp tamit jëm ci jongante yooyu le non ñun mën nañ jàpp ni du moment où président jël na mbirum parrainage bi teg ko ci suuf ci élection locale yi alors que loi bi dafa ne woon que le parrainage s'applique pour toute élection. Mhm. ñu wut lay naan consensus xam consensus mënta réviser consensus wax ak ay nit la rek. consensus boobu sax kenn mënu la wax ñan ñoo fa nekkoon ak ak lan la ñuy peser d'une certaine manière. Mm-hmm. donc ñu ñëw teg ko. ñu jékki dem ci élection yi xam ne foofu gars yi duma nañ leen duma bu metti ñu indiwaat bëgg a ñëw tànnaat donc loolu dañuy jàpp ni Macky taxawul ci processus organiser élection législative mais dafa taxaw pour teg ay prox ndoll pour xool nan lay mën a repousser waatee élection yi ba moom daanaka euh, bu mënul organiser élection yi ci feewu mandaam tam du ko sori parce que xam na ni ci jamono yu ñu toll ni bu organiser woon élection day ñàkk kon yow da ngeen jà da ngeen jàpp ne euh, ñoom parewuñu pour organiser élection et pourtant ci élection yi et processus bi enclenché nañ ko xoolaat fichier bi euh, tey dara desul lu dul le 6 mai ñu daal di déposer caution yi euh, foogoo ne c'est trop tard wala non mais parce que ñoom bu ñu taxawoon ci tànku organiser élection hmm. dañuy mboytu lép li nga xam ne mën na indi coow wala tolof tolof wala jaxaso hmm. mbirum parrainage bi tey nan mën a expliquer que bu doon état bu taxaw la pour organiser ay ñu ñëw ne nit ñi wàcc leen ci langue bi wut ay élection ba sànq ci wut ay parrainage plutôt alors que ba sànq ci suba mënuñu la wax nan lañ koy nattee donc birum naq bi boo waxee ñu ne la peut-être bii pas du nekk conseil constitutionnel peut-être ministère de l'intérieur la alors que nit ñi vote nañ principe juridique yoon du mu tëral dafa leer mm. maanaam booy dem muy examen muy jogante muy leneen balaa ngaa dugg wala balaa ngaa tàmbali mosoo dugg ci benn concours bi nga xam ne da nga koy def wala examen ci biir examen bi ñu dee la ñu ngi xool nan la ñuy corriger épreuve yeeg yooyu loolu amul. loolu mooy li nga xam ne xel mënu ko nangu moo tax ñun ci lu ñuy jàpp moom mooy Macky Sall dafa taxaw ci ay tànk saboté mbir mi mais lu ko waral moom mooy waxoon naa ko depuis deux mille quinze. Mhm. Euh, Macky Sall dafa ne woon day def juróomi at mu fexe ba def juróom ñaari at. Mhm. léegi pour la première fois suñu constitution ak fonctionnement wu calendrier électoral bi am décalage moom mooy lan. Mhm. mooy tey dañu ñëw fekk président bi nga xam ne presque day jeexal mandat mais gis nga euh, tey assemblée nationale euh, donc bu bees war a ñëw. Mhm. ñaari at yi ko dese. Mhm. daanaka loolu lay ragal lu muy ragal moom mooy gis ngeen ko moom dafa jàppoon confiance. moo tax mu def procédure d'urgence indi poste premier ministre ba mu ñàkkee élection locale yi dafa teg mu premier ministre bi à côté. Mm-hmm. donc loolu yëpp moo lay wane ay calcul la nekk pour conserver pouvoir léegi nag euh, opposition bi tam ñoom ils ne doivent pas jouer le jeu wala jouer au naïf. ndax gisoon ne ñu ngi ciy daanu ndax gisoon ne ñu ngi koy fekki ci lim leen di ah, xëcc. jàpp naa ne ña nga xam ne en tout cas ña ngay daw di wuti parrainage. ñooñu boo moytul danañ dugg ci këppatal bi nga xam ne moom la leen di tegal. Hmm. moom mooy lan parce que mënoo ñëw di day wuti ay parrainage alors que xamuloo nu ñu looy nattee loolu laataa ngaa wut dana da nga war a exiger nan lañ lay nattee. Hmm. donc boo demee wut nag muy million muy deux millions ak nu mu mënti doon mbir mi du dayoo bi ñëpp mën nañ am parrainage mais ñoom lan la ñu koy valider loolu boo demee nag teg say parrainage euh, lu la fa teg lu la fa fekk itam yaa ko def sa bopp. parce que waroo fa woon dem bu dee yoon daf la may dara ëttu àttekaay yi ne lii lañ la may da war a taxaw temm ñu jëfe ko boo dénoncé nag moom mooy yaa ngi complice de violation boobu. man loolu mhm. laa ko jàngat. maître euh, ñu jeexaleeg gis nañ ne cour de justice euh, CEDEAO une fois de plus joxe na euh, dogal ngir nag ñu daal ko jëlee ci Sénégal bu moom mooy. Euh, mbir mi eh, déjà euh, euh, xeex bi tàmbali na ay ñetti at wala ñeenti at ci ginnaaw. Mhm. tey laataa ñu ko attaqué ci cour de justice CEDEAO bi ci cour suprême bi lañ ko njëkk a attaqué. cour suprême bi fàttali li nga xam ne mooy jurisprudence LDMPT ba nga xam ne depuis temps Abdou Diouf chambre administrative cour suprême mosu ci jóg dafa mhm. ne muy préfet wala ministre de l' intérieur yoon mayu ko mu teg benn décision bi nga xam ne c' est de portée générale et impersonnelle. Mm-hmm. et illimitée maanaam chaque fois benn kaala la mu war a génnee arrêté bu cas boobu jeexee mbiram gi jeex na. Mm-hmm. Euh, yoon fàttali ko fii euh, état continuer di teg ay prox ndollu ñu dem cour de justice de la CEDEAO tey lu cour de justice de la CEDEAO bi wax ci arrêté bi euh, dafa fàttali rek. li nga xam ne mooy suñu ponk ak suñu charte démocratie mooy liberté de réunion liberté de manifestation mhm. donc arrêté Ousmane Ngom boobu tey ci benn arbre bi nga xam ne moom le pouvoir bi doon sukkandiku pour tënk nit ñi société civile ak opposition ba kenn du mën a euh, manifester ab feneen fu nekkul place de l'obélisque mhm. donc loolu mën nañ jàpp ne ngànnaay boobu cour de justice de la CEDEAO rocc na ko ginnaaw ba mu roccee beneen gànnaay bi nga xam ne moom la jëloon aussi muy parrainage bi pour éliminer ñi nga xam ne ñoo ko mën a indi ay difficulté ci compétition électorale mm. mën nañ jàpp ni nag comme ñaari gànnaay yooyu euh, donc cour bi rocci na ko ci loxo état du Sénégal parce que jugé nañ dëppawul ak yoon mm. lu des nag ci suñuy loxo la ñun sénégalais yi mooy politique ak société civile ñoo war a taxaw temb pour ñu jëfe ko parce que Macky Sall euh, donc ëppul nit ñi ay ak ay yelleef mhm. droit moo ko fi teg droit moo ko may protection tey bu toogee fële pale dara mënu ko jot c'est parce que droit la donc ci droit boobu la ñuy sukkandiku pour exiger mu respecter principe démocratique yi ak état de droit yi nga xam ne ñoo ko fi teg mais fàttali ni ba ñuy xeex pour moom mu falu mhm. loolu moo nekkoon sensu engagement bi lu mat euh, fukki bakkan ak benn jot nañ ci rot mhm. notamment Mamadou Diop ak ñeneen ñooñu dañu engagé woon parce que dañu gëmoon dëggu teewu message bi nga xam ne moom lañ doon woote moo tax tey amuñu droit ñun ñu def preuve de faiblesse wala ñu dellu ginnaaw par rapport à la défense de cela parce que ce serait une deuxième mort pour ñooñu maanaam finalement dañuy nangu ni ñooñu dee nañ pour dara loolu mënuñu ko nangu. maître Abdoulaye Tine ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa leen di jaajëfal ci jokkoo bi. Mm-hmm. di leen jox ndox dañu